un deux maa lay fay yow presse bi bi sànq ñu ngi lay xaar si ñëw ñu maa ngi leen di nuyu di leen fay di jégalu aussi ci xaar bi xaar bi ma leen xaar ba teewaay bi lan nga si mën a wax waaw non tey bésu bésu mbégte la bésu bésu contentement la ci ci ñun waa ak ci Sénégalais yëpp ak képp ku lu baax waaw parce que ki nga xam ne moo moo woote mooy Amady sama mag sama xarit ku ne xam maa moom fu ñu ci àdduna ñooy bokk lépp xam nga. 1 2 3 test micro mic test test micro waxtaan ak man bu sore sore sore loo xamante ni tey dépassé na mag a rak mais ay xarit. soo amee bés bu mag bu tudd doomam wëlbatiku tuddee sama mag aussi Waly loolu loolu mbégte la rek ak contentement bu mag a mag a mag bés bi dañuy ñaan suñu borom laf cat rek moom laa wax dañuy ñaan borom bi laf cat ci ci bi est-ce que xaaral nga ko en quelque ndax bett na. non bett na wax bett ma dama mu ndaw daawu ci biir këram loolu xam naa ni bon ñëpp xam nañ fi mu toll ci waali ñëpp xam nañ fi waali toll ci moom yaa ngi dégg mais moom xamoon naa ne fale mu def confirmation mooy lii. moo tax bettul kenn quoi. ndax bu ñu jógee ci ci bés bi album international Wally bi ñëpp di ko xaar loolu la nga siy wax. waaw euh, di ko xaarandoo ak sénégalais yëpp rek di ñaan tamit parce que jullit moom ñaan rek la la la am gannaaw bi ñu liggéey ba pare mu leer ñun ni liggéey nañu ñu nag ñaan suñu borom mu kàttan nañu ba lépp luñ ci yaakaar rek mu defal ñu ci lu kawe suñu jot waaw ci barke borom Tuubaa. ci côté arrangement yi est yow participé nga ci album bi. waaw waaw Wally amul lu muy def te duma ci participer waaw ndax loolu tamit suñu borom dogal la waaw participer nañ ci bu baax a baax a baax a waaw di ñaan suñu borom rek lépp loo xam ne dafa ñu ko ci rek waaw mu kawe lool incha allah. ay percu wala bongo yooyu ndax on parle waaw am na lépp nag gaa yi dinañ dégg lu bëree bëri bëri waaw gars yi dinañ dégg lu ñu mës a dégg incha allah waaw ci musique ñu gis euh, maison de production bi nga xam ne moom la signé muy Biliir nekk fële sa France gis nañ contrat bi nekkul contrat boo xam ne 360 degré la mais contrat bi nga xam ne nii la euh, pour maanaam album bi kese la est-ce que jàpp nga ni maanaam peut-être génn ak dugg boobu dina arrangé waaye seeg si album niveau international bi. ah waaw non côté boobu ci côté boobu moom foog naa Wally tontu ci moo ciy gën mooy gën a euh, mieux place li ma xam daal mooy lépp loo xamante ni luy la ndam ci li nga xamante ni moom lañuy liggéey mu musique bi waali mi ci waaw suñuy pët sax ñu ngi bilive waaye suñuy bët jéggi na bilive te incha allah li ñuy wax sénégalais nañ ci teg seen bët waaw dañuy ñaan daal suñu borom mu kattanal ñu ba lépp li nga xam ne mébét nañ mu sotal ko incha allah rabbi te di ngeen ko gis. yu mag. bien sûr. featuring euh, euh, euh, Wally ak Chris Brown ñu ngi ci ci album bi la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay surprise lañu donc na gaa yi xaar rek incha allah. na ñaar titre la. fàtte exact fàtte exact mais war na toll ci ay dix neuf suma juumul dix neuf mbaa vingt lig waaw liggéey nañu ba doyal moom dëgg yàlla liggéey nañu ba doyal. mais ñu nga wax waxu disque d'or eh, gisoon c'est un peu tôt wax si waxu disque d'or waa non loolu question de choix la rek mën na teel ci yow mën na teel ci keneen am na ñoo xam ne teelul ci ñoom comprendre nga tey nit ki ñaar ñaar moo am li muy mébét bëgg ko da koy bàyyi ci xolom nekk ci li mu nekk wala li nga mébét bëgg ko nga wax ko siiwal ko a ñëpp dégg ko nga xam ne lii laa bëgg mais itam ñaar yëpp ñu ci mën di am rek suñu borom mooy dernier mot bi moom mooy teg dernier mot yàlla nañu tegal may ñu lu ñu bëgg te loolu incha allah day ñëw. bataille de communication bi dañu gis ni entre sénégalais la en fait ñii dañu bëgg mu am disque d'or ñii ni waru ko am mu mel ne xeexanta bi ci biir euh, artistes yi wala fans yi jeexagul. waaw loolu loolu mooy xel mu dal parce que lu ñëpp ànd bokk fii surtout fii Sénégal lu ñëpp ànd bokk waxandoo ko loolu baaxul ñi fi fii Sénégal fii ñi fi man ba ci biir yi ñi ci man ñëpp ànd ñoom ñoom fii Sénégal mais noonu la demee noonu la tëddee. donc euh, suñu xool sax day sedd bu ñu gisee loolu parce que dañuy xam ñun loolu moo ñuy ñaax en tant que jeune en tant que xale bi bëgg a liggéey loolu moo lay ñaax say fans da ngay ñaan sa borom la la ca seen diggante mais ñeneen ñi ñoom ngay war a gën a xool sax que say fans parce que ñoom moom dañ defuñu lu dul di la ñaax rek di la yokk a jóg. mais moom Sénégal lay Sénégal lay représenté donc est-ce que ñëpp ñu bootu def benn say pour dooleel ko mu a am disque d'or parce que gën nañ am ko ñu ngi ko woowee. dafa am façon sénégalais yow ci bii nga bokk xam ñu ngi ci beneen na ñoo xam ne da da da nga tëpp ni disque waali disque d'or ñu ne la riigu riigu may la disque d'or te oo jaajaa am na disque d'or musique amul du diine du islam musique fola laa la la la la la la mun na am disque d'or pata pata am na disque d'or c'est ça la mais sénégalais bëggul boppam ci ñi ma ko war a wax ci ñenn benn côté bi mais loolu tam da ñaax loolu c'est bien man loolu dama bëgg loolu boo dee borom itam da ngay bëgg loolu parce que loolu dafa bokk ci li nga xam ne moo lay kattanal. mais wàllu bu embrasser carrière internationale am est-ce que en quelque sorte du pénaliser musiciens yi nekk fii war a jouer ci boîte yi ak euh, ambiance bu ñu xam fii parce que man bu embrasser carrière internationale am est-ce que musiciens yi nekk fii de euh, en quelque sorte du leen pénaliser parce que dafa war a suivre li nga xamante ni moom mooy logique gu album bi bu xasee ba génn. maanaam album international bu ñu ko waxee c'est typiquement international bi ñu jàpp ni même morceaux yooyu les yeux fii ci boîte yi est-ce que du pénaliser musiciens yi nekk fii parce que war na continuer promo bi bu album bi génn au niveau international ah. sa question bi. maanaam ah. li wax mooy waa Seck bu génnee dafa am benn euh, son boo xam ne sénégalais yi mën nañu peut-être ay afro bi rek yooyu noonu sénégalais am amuñu habitude yu déglu loolu mbalax bi day am habitude déglu est-ce que tey waa Seck bu amee niveau international boobule est-ce que du pénaliser maanaam son bi nga xam ne ak li nga xam ne nii Sénégal yi moom la ñuy déglu fii. Ah. non mais Sénégal di Sénégal bari na ay mélomanes bari na ay mélomanes yoo xam ne soxoruñ duñu duñu sax. du ñu doon far fan su artiste bi mais ay melomaan lañu dañuy dañuy dañuy apprécier dañuy bëgg lu rafet comprendre nga te li ñu li nga xam ne moom la waa leen liggéey ci album bi mais day jar fii day jar fële ndax sénégalais dañoo dàkk cons waa fële waa fële mais sénégalais dañuy américains yi sénégalais dañuy xam seen morceau yëpp lépp lu def it lépp lu nekk it ci biir Amérique sénégalais yi xam nañ ko mën nañ la toppal lyrics yi waxal la lépp ba mu jeex bu dee France noonu bu dee Corée ak lépp loolu Sénégal dañuy cons musique xam nga donc du yàq dara du yàq incha allah du yàq dara ñaari couleur yëpp sénégalais dinañ ko cons ci fii ak fële. incha allah. sànq yaa ngi koy tudd léegi tudd nga patapata boo tuddee patapata tudd Kumba Gawlo alors Youssou Ndour moom tamit gis nañ ko peut na si artistes yi nga xam ne ni ñoo njëkk am euh, lii di disque d'or est-ce que jàppoo ni Wally Seck avant muy dugg si projet bi yëpp moo na dem seet seet seet ñooñu noonu waxtaan ak ñoom ñu wan ko lii di yoon bi. waaw non Wally amul ku mu ci ci kilifaam fii ci réew mi Wally côtoyé na ñëpp koo gis ñu ne la Wally waxul ak moom wala jegantewuñu wala waxtaanuñu rek kooku la ne comprendre nag nga waali tëjulul kenn porte te moom it diisul pour dem ci fu mu a doon comprendre nag parapara dama juum ni disque doon mais disque platine la am comprendre nag donc c'était pour prouver ñenn ñi nga xam ne dañuy wax ni disque d'or dafa aajowu ci parole wala dafa aajowu ci genre yu mel noonu waaw li am disque d'or pour borom rek ko xam yee la demee maanaam sama moo ngi wax maanaam est-ce que joué nga si album parce que te jii disque d'or dafa nekk loo xam ne yow boo si joué yow maanaam yow Benjamin bokk na si ñi am disque d'or est-ce que Ramdan yëpp participé nañ si ba disque bu génnee ñu ne waa Ramdan kat am nañ disque d'or mais pas Wally Seck kese non Wally mooy Ramdan Ramdan mooy Wally Wally ba amee disque d'or waxuma Ramdan mais bépp musicien bu nekk Sénégal artiste waykat instrumentiste ñëpp loolu seen fierté la ñëpp am disque d'or bu fekkee am na ko yàlla nañu ko suñu borom defal muy ndamu ñëpp. mais fi ñu fi ñu tëjee rek justement da nga bokk si jeunes yi nga xamante ni Sénégalais yi ngeen bàyyi xel ci côté arrangement morceau ak yooyu ñenn ñi jàpp ne yow yaay futur Habib Faye est-ce que yow yaa ngi am prétention boobu noonu. ah waaw euh, euh, xam affaire yi moom sabab lu moo fi nekk te ñun ay ndaw lañu rek comme ni ma ko waxee chaque jour dañoo ñëw fekk suñu kilifa yi am fu ñu affaire am fu ko teg. ñun ñu ñëw war a bay suñu wax te wolof dañu ku yokkul yaa wàññi man ci sama part personnel damay xatraayu ba teg birig ma nit ci lool laa nekk yàlla na ma suñu borom kàttan parce que fii jàmbaar amul ko suñu borom dimbali moom am noonu la demee. Fall dafa dafa jaloux quoi moom waa léegi lay liggéeyal liggéeyal benn artiste ndax loolu. non li ma liggéeyal bari na li ma liggéeyal bari na. ah du fës non xañ du fës wala gars yi kat mën nañ bañ a seetlu parce que du ma vidéo yooyu du ma ci bokk wala du mais tey AOPP e bu Demba Guissé it ma sénégalais bu ko xam te ma Fallou moo ko ak yeneen ak yeneen Siri Diop première single maa ko defar maa maanaam ak yeneen ak ñeneen ak ñeneen donc maa ngi joob ak ñi nga xam ne maa ngi mën a joob ak ñoom comprendre xañ na mën na bañ a fës quoi. non gëj nañu liggéey rek. a ah, mais Sidy dafa nekk ci label xam nga bu nekkee ci label moomatul boppam c'est ça Sidy sama rakk la sama rakk la <laughs>